suñu mbokk internet su Dakar Net eh, di kontaan bu baax a baax ci topp bi ngeen ñi topp dal leen jàmm ci seen eh, rubrique bi nga xamante ni mi ngi tudd les minutes de l' li ci gën a fës mooy Serigne Mountakha Mbacké Bassirou euh, li ñu ko xamee defati na ko jël na li nga xamante ni moom mooy juróom fukki million daal di koy jébbal ñi nga xamante ni euh, dañu loolu ci manifestation yi amoon ay bés la ñu génn waaye ki nga xamante ni euh, tey bësu bëccëgu tey téeméer ak fanweer ak benn ci appelu laayeen yi tey la woon waaye amul benn dajaloo ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci déclaration bi bi nga xamante ni porte parole laayeen yi moom la def loolu également dinañ ci ñëw dinañ ñëw ci Adamo Adamo wax na ci euh, décès Thione ba sekk waaye dafa mel ne moom dafa jël dafa jël cere ji daal ci xëpp suuf li tax loolu également dinañ ci ñëw bàkk ba jóge ñu ñëw ci yaatal bi ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor les minutes de l'info les minutes de l'info ngeen ci ànd ak Ousin comme ni ma la koy waxee woon ci boppu xibaar yi ki nga xamante ni mooy Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ginnaaw bi nga xamante ni ñi ngi doon taxawal jumaawu eh, jumaawu tijaan yi jumaa ju mag ji mu daal ci dugal alalam ju bari ginnaaw tamit li nga xamante ni moom mooy université bi nga xamante ni dañ koy tabaxal Touba mu def ci xaalis bu baree bari eh, coronavirus bi 200 millions la joxe barki démb mu joxe li nga xamante ni moom mooy juróom fukki millions ñu bari sax di rafetlu loolu di gis ni moom dafa nekk eh, xalif général boo xamante ni dafay informé wu te lépp loo xamante ni askan bi mi ngi ci def ci dugal loxoom bisu tey bi moo nekkoon appel bi di 141 nekk appelu euh, laay ni tey ci bëccëg gi tey gi la woon waaye amul woon benn mumbaay amul woon benn dajaloo ndax coronavirus bi moom moo ko waral ndax euh, li nga xamante ni moom mooy seen porte parole bi moom moo ko wax niki démb tey euh, waaye nag sénégalais yi ku nekk fa nga toog yaa ngi ko doon dundu eh, ni ko sëriñ bi diglee ñaar fukki xale ak ñett lañu teg loxo ci mbir mi nga xamante ni ñu ngi leen di toppee ay yàqu li nga xamante ni moom mooy Auchan bi ak eh, banque bu nekk Pikine bi ñu jàppoon ni ñoom xale yooyu ñoo ko doon toj justice bi déggul li nga xamante ni opposition mi ngi ko doon wax fan yi yëpp passé jëm ci mbiri xale yooyu ñu daal di leen di eh, bàyyi moo waxoon naa leen ko yéen a yàbbi ci mbiri Wally Ballago Seck dese papaam bii di Thione Ballago Seck moom sax la ñuy daanelee wax leen tuuti si jaar-jaaram waaye Adamo moom nee na ñu baree bari dañoo ñëwoon ci li nga xamante ni moom mooy dëj ba ñu baree bari siiw moo leen fi indi wala wan Wally Ballago ko ñun ñu ngi sa kanam ñun feeñ na ñu ngi nii taxaw loolu moom moo leen taxoon a jóg ñu daaneele ko ak Thione Ballago Seck mbiram tuuti si jaar-jaaram lañ leen di wax 1973 la commencé di tëgg tama am toll si toll si 15 ans euh, bi mu àndee ki nga xamante ni mooy Bira Gueye dékk fi nga xamante ni moom mooy Pikine moom la doon àndal di dem fi nga xamante ni moom mooy Ablaye Mbuub di ko aw bi mu amee 16 ans ci la daal di intégré li nga xamante ni moom mooy orchestre Baobab 1975 la woon euh, ñu ngi fàttali ko bu baax baax woyam boobu nga xamante ni dafa woyoon tudd sëy di ci sargal jigéen ñi ginnaaw gi la fa jugee 1978 daal di bàyyi Mapenda muy doxal moom ginnaaw gi 1980 la Thione Ballago dem fi nga xamante moom mooy France daal liggéey benn euh, producteur boo xamante ñu ngi koy woowee Raban Raban Raban production Raban boobu noonu euh, Paco Rabanne ah Paco Rabanne boobu daal def benn production boo xamante ni daf si jël 700 artistes africains tudde ko l'Afrique est chic Thione Ballago Seck bokkoon ci ba Sénégal yu bari bari doon ñaaw lu yàgg bi mu yàgg li nga xamante ni moom mooy Paris et d'ailleurs ci la génne woon morceau boobu nga xamante ni mi ngi tudd France ak siiw di ci wax ni siiw du jaami borom siiw moo waral lii yëpp alors ba léegi 1983 Thione daal di ñëw Sénégal dal di jaay. daal di tayle li nga xamante ni moom mooy ay kayitu waa këram pour am ay instruments yoo ni ci la taxawalee ginnaaw gi 1983 euh, li nga xamante ni moom mooy euh, Ramdan doon tëgg ci ay boîte lu ko mel ni ngalam lu ci mel ni Sahel ba ñuy wàcc ba Ekili ba ginnaaw gi ci année li nga xamante ni moom mooy mais balaa 2007 Thione Ballago Seck bokkoon na ci benn album boo xamante ni moom moo ko génnee mu ngi tudd Orientissime alors album boobu noonu waroon àddina and ci ak ay marocain ay égyptien ak ay sax indien ba am ci disque d'or alors daal ci gañe lu toll ni téeméeri million 2007 ci la bàyyi Wally Ballago Seck mu doxal moom mu retiré wu Wally Ballago sekk génnee benn morso bu tudd boo juddoo ginnaaw gi ci la Wally génne album bu tudd album boobu noonu sax si boppam 2009 la la génn nekk sept titres Wally di continuer di doxal con ni nekk doomu waykat dafa metti donc dafay bàyyi boobu encadré ko alors ci ñooñu Sénégalais di commencé xam kan mooy Wally kan mooy Wally ba 2010 ci la génnee album bi di jaaga way ci jaaga way wu rëy ba sax am na su benn reportage ñu ci def du ñàkk di ngeen ko gis ci njeextalu xibaar yi ba ñu bëree bari jël way boobu def ko seen préférence 2015 ci la ko yoon teg loxo di ko toppee mbiri faux biais mu daal ci euh, dem ndungu siin daanaka 8 mois mu def ko kaso ba mu génnee def conférence de Euh, daal di wax ci mbir yi leeral ginnaaw gi ci la am liberté provisoire ci la génnee album bi yàggul dara tamit te génne album bu mujj bi nga xamante ni sénégalais yi tamit bëgg nañ ko trop arbitre bi nga xamante ni album bi mu ngi tudd CEDEAO en sueur alors loolu tudd mu daal ci woo lu toll ni 16 pays africains ñoom ñoo ci participé daanaka dox na ko 7 ans doon ñaawlu sax état bi li tax tegu ci loxoom waaye morceau yi nga xamante ni Thione ko joué dafa bari ay tube la bu ñu si doon ñëw amaana fi na ñuy fanaan te du ko xaj mais li ci gën a am solo moo yàggul dara Thione Ballago Seck dafa enregistré benn album boo xamante ni daf ko waroon génnee semaine juste avant koor gi une semaine juste avant koor la waroon génnee album pour dégtal ko Sénégalais yi mais album boobu dafay wax ci këru diine yi di leen rendre hommage bon malheureusement suñu borom daal di koy jël àjjuma mu daal di euh, am benn tawat bu ko dal ñu rawale ko yóbbu ko hôpital Fann samedi ci suba teel bi mu daal di génn àdduna di koy jàlle bépp sénégalais ci sama cour ci sama tur di ko jàlle bépp waykat bépp sénégalais bépp nit boo xamante ni yaa ngi doon euh, bëgg dëgg ndax sax daana ko faral di wax ci ay interview yi moom Thione Ballago Seck ni moom nit jullit bu amee ba bu demee ba am 60 ans daanaka baax na ndax donc wax na ni moom 60 ans boo ko amee rek leneen loo ci teg bénéfice la donc moom waajaloon a baax bon bëggoon nañ ko gën a yaatal mais temps bi du ko matee dañ leen di jox rendez-vous beneen yoon ci les minutes de l'info ngeen koy am di mercredi yeneen bés yi tamit ngeen koy am ay format audio ngeen ci ànd ak Ouzin muy leen di abonné seen site d'information bi di Dakarnet dara du la rëcc ci réew mi